ñu ngi am mbégte ak kontaante bu baax di nekk ci waajtaayu gàmmu Medina Baye édition 2024 waaye ko wax gàmmu sa xel dina daj Maolana Cheikh al Islam Haaji Ibrahima Niass mi nga xamante ni si weeru yu jubluwaan daan ndokkeel boppam daan wax hani an li Ibrahima laha hilaaluhu hilaalum bada li naazirina jamaaluhu ginnaaw bu ñu ko ndokkalee nag dañuy ndokkeel alxalifa Maolana Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass waaye tamit eh, xel yi dana daj nga xamante ni mooy borom guddi gi muy Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass mi nga xamante mooy taxawee li nga xamante nii mooy gàmmu Medina Baye waaye nag euh, jamono ji nag euh, ñu ngi nekk ak ki nga xamante ni moo nekk Cheikh Mouhamadou mun xam naa Ibrahima Niass nekk mudirul mahad alxaaji Abdoulahi Niass bi nga xam fële ci saam nga xamante ni école boobu bàyyi ci boppam wax na ne ci la jàngee ndax école maam alxaaji Abdoulahi Niass la ñu ngi am mbégte ak kontaante bu baax ñëw fekk ko fii eh, buñ ndokkalee ñooñu nag mooy ne ndokkal ne ñëpp ñu amal benn waxtaan boo xamante ni ñu ngi koy amal ak eh, suñ papa Cheikh Mouhamadou Mouhamina Ibrahima Niass fii ci Kër Baye ci lew nañu seen ci waajtaay li nga xamante ni moo di gàmmu Medina Baye édition 2024 oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziare di la wax dalal ak jàmm ci organes yi nga xamante ni moo nekk média de la Hadar ñu gën koo xam ci CMF euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Euh, di sant yàlla lool di leen tatagal fii ci saal bi nga xam ne mooy saalu Baye Niass radiyallahu anhu fii ngeen toog nii mooy saalu Baye bi nga xam ne euh, néegam a ngi nii fii mooy néeg baayam waaye fii mooy saal bi nga xam ne fi la daan recevoir gan yi fi la daan toog moom ci boppam waaw kon tey jii nii loolu loolu beneen beneen mbir la ñu ngi koy sant yàlla euh, di leen delloo njukkal yi tamit média de fayda di leen tiitaroo di leen bëggee di wax ne dëgg-dëgg nag jot na pour nit ñëpp xàmmee xam ne Madiadala Fayda dafa war a nekk lu lu lu obligation la nekkatul sax kii waaye obligation la parce que tamit àddina bi toll na foo xam ne ci média ñi nga xam ne ñoo yore média yu mag yi ak képp ku yore say say mbir buy tasaare xibaar ni ko bëggee nga koy nga koy organiser ak na ko xamee te pays bi nag kon dafa soxla média boo xam ne ñi ci nekk li pays bi di wax dañ koo mos xam ko jàng ko dund ko ba pare bokk ci xam xàmmee ko bu ko defee ñu xam li ñu war a wane lan la ak li ko jar lan la ak li ko jarut lan la su fekkee ne dégg ngeen li ma bëgg a wax bu baax a baax mbir ki ko xam dëgg-dëgg dund ko mos ko jàng ko muy ba pare muy muy muy muy muy bakkenam kooku moo ko mën a moo ko mën a sàmm moo ko mën a tasaare hmm. parce que keneen bu ñëwee mën na jàpp leneen loo xam ne nii duut mooy quintessence bi mu foog ne loolu moo am solo hmm. wala mu mu mu mu am loo xam ne intérêt nekkul ci génnee ko du ko génne hmm. kon nag doomi pays bi doomi xadara bi ñi jàng am xam-xam tarbiyu xam yàlla dégg nga yaru ci yaru pays bi ñooñu dafa jaadu ñu am média boo xam ne bokkut ak généralité yi ak politique ak nangam waaye li aju ci fayda bi moom spécialement doomam yi ñoo ko xam ñoom ñoo war a ñoo xam matière bi ñoo xam nuñ koy duñ koy jàllalee ak naka lan lañ ci war a jàllale ak objectif bi ñu am ci jàllale ko lan la. kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci loolu. fan yii nag ñu ngi nekk ci waajtaayu gàmmu dina Baye ñu bëggoon rek euh, ku ñu defal benn waxtaan bu gàtt jëmale ko ci Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahima Niass ak li nga xamante ne mooy gàmmu bi si fa am. waaye tamit bëgg nañ nga waxtaan ñu tuuti ci maaxat bi nga xamante ni yow la yàlla teg ci bopp bi eh, ñu ci mën a résumé loolu moom la ñu mujjee waaye waxtaan wu njëkk yu daal ñu waxtaan ci bàyyi ak li nga xamante ni mooy gàmm. waxtaan wi moom comme waxtaanu jamono moom ni ngeen ko xamee dafa laaj mu bañ gudd lool. Mm-hmm. Eh, dama la koy tëggal rek. Mm-hmm. ne dafa am loo xam ne moom xaj na dafa mel ni léegi eh, maanaam benn garabu pharmacie. nañ jël par exemple aspirine ci yi nga xam ne moo gën a moom moo yàgg siiw mm. jamono bi muy toll ci laboratoire ak bi muy tollu ci ñi di ko expérimenter ak di defar ak di ko jàngat mm. dégg nga ba ba muy àgg ci ñu dem ba nangu ne lii norme bi nii la ba ba ñuy àgg ci euh, maanaam euh, laboratoire yi jël ko di ko defar di ko tasaare pour nit ñëpp di ko jot ba nga xam ne fi mu ne soxlaatul di laaj te composition bi lan la parce que addina bi yëpp xam nañ ko laajatul laboratoire bi ko defar ñëpp xam nañ ko lim laaj rek mooy soxla nga ko demal ci pharmacie jënd ko nga naan wala soxla woo ko nga bàyyi ko mm-hmm. gàmm fi mu ne foofu foofu la foofu la ko bàyyi yóbbu mm-hmm. bu doon aspirine la defar na ko ba nga xam ne dem ci pharmacie rek jënd la soxla ko wala soxla ko mm-hmm. lu loolu mooy lan mooy bàyyi dafa ne gàmm moom fi mu ko teg fu gàtt la yàlla dafa wax ci alquran kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi fa falyafrahu huwa xayru mimma yajmaun mhm. yow waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi ne leen nañuy bëggee ngëneelal yàlla na nañuy bëggee yërmande yàlla te nga wax leen ne lépp luñ am ci àddina ak alaxira suñ ko boolantee nu mënti toll du tolloog bëggee ngërmande yërmande yàlla du tolloog bëggee ngëneelu yàlla mhm. loolu moom alxuraan ko wax mu leer kul bi zalik fal mhm. nañ ko bëggee mu des nag bëggee bi nan la su la neexee nga ne ci xol bi la su la neexee nga ne euh, nit mën na koo defal manifestation su leexee nit mën naa fàttaliku yonent bi ba géntu ko sallallahu alayhi wasallam mën naa mën na ñëw tag yonent bi mu jooy yooyu yëpp bëggee la hmm. waaye comme bëgg am na ci te ci làmmiñ lañ ko wax rek mooy ne làmmiñ tamit am na ci cër hmm. fekk dégg nga li ma bëgg a wax hmm. kon làmmiñ tamit am na ci cër pour pour pour pour génnee mbégte googu nga xam ne moom la war a béggee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu des beneen question mooy yàlla d'accord nañ ne wax na ne nañ béggee yërmande yàlla nañ béggee ngëneelal yàlla waaye lan mooy yërmande yàlla ak lan mooy ngëneelal yàlla mm-hmm. euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo waxal boppam ne ana rahmatul muhda man maay yërmande yàlla ji nga xam ne yàlla moo leen ko jox kado mm-hmm. kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo wax ne moom mooy yërmande yàlla mm-hmm. yàlla wax ko ci alquran ne ko wa kaana fadlullahi alayka aziman yow ngëneelu yàlla ci yow dafa kawe te dafa màgg ba yàlla di ko di ko wax azim lu yàlla di wax azim xam nga yàllaay wax lu am asamatu ci yàlla bokkut ak lu lu am asamatu ci nit ñi euh, yow sax boo ne woon azim lu rëy la waxatuma laaj nag bu ko yàlla waxee ci boppam yàlla nag mu ne ko yow yërmande yàlla ci sa kaw dafa rëy lool kon mën nañoo jàpp ne moom it mooy jëmmi ngëneelal yàlla su yàlla waxee ne nañ bëggee ngëneelal yàlla nañ bëggee yërmande yàlla moom mu ne man maa yërmande yàlla kon yàlla daf ñoo wax ne nañ bëggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee naa nag su fekkee ne bëggee am na bët am na ci wàll nopp am na ci wàll xol am na ci wàll waaye lamiñ tamit am na ci wàll waaye cër yi tamit am nañ ci wàll kon loolu mooy mooy mooy loolu bàyyi nag ne forme bii nga xam ne moom la ñuy def mooy ñun dañuy bëggee yonent bi at mi yëpp ak suñ dund bi yëpp fuñ àgg moom moo ñu fa àggale waaye nag bés bii ñuy ñuy tànn muy bésu juddoom di ko def mu ne maa ngi ko jëlee ci alquran. wa kulla naqussu alayka ba anba'i rusuli maa nusabbitu bihi fu'aadak yàlla moo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko danaa la nettali xibaaru yonent yi la jiitu woon te yaa leen gën yaa leen gën a jege yàlla ci yow la ñuy tëbboo waaye terewut comme jiitu nañ la fi ci zahir da nga soxla xam seen jaar-jaar pour mu dëgëral sa gëm yàlla xam nga wax bi dafa garaaw maa nu sëbbitu bi fu àddak lu ñuy dëgëralee sa xol ci gëm yàlla bàyyi nag mu ne leer na di su fekkee ne yonent bi sallallahu dafa soxla xibaar yi ñi ko jiitu woon te moo leen gën a mat mhm. moo leen gën a xam yàlla moo leen gën a jege yàlla moom moo leen di tëbb waaye terewul jiitu bi ñu ko jiiti zahir tax na mu war a jàng seen taarix war koo jëriñoo ba pare mu dëgëral gëm yàlla xam nga loolu moo ci garaaw mhm. fekkoon ne sax danga koy jëriñoo ci culture wala jëriñoo ko ci sa doxalin waaye maanu sëbbitu bii fu àddak dafay dëgëral sa ci gëm yàlla mhm. su fekkee dañoo muñoon ñu wan la misaal ci muñ su fekkoon ne dañ laa dañ leen a tooñoon ñu wan la misaal ci tooñ su fekkoon ne su fekkoon ne su fekkoon ne yooyu yëpp nga jàng ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkee soxla na loolu kon ñun amul werante ne soxla nañ jaar-jaar yonent bi seet fa mu ñëwee woon seet ña ko tooñoon nu mu def ak ñoom seet ba muy lu ko lislaam jaraloon ak euh, taxawaay bi mu ci taxaw ak lañ ko ci def ci coono ak liñ def jabootam lépp mu muñ ko ngir ngir ngir ngir ngir ngir kii waaye boo jëlutoon lu may rek ba mu demee ba bañ dàqee ko di ko sànni xeer ba ba ba mu nàcc ba malaaka mi ne ko joxeel ndigal ma boolante ñaari doj yi mm-hmm. malaaka mi ne ko joxeel ndigal ma ubbi géej gi suuxal leen lu mu ca teg law ma ihdi xawmi fi innahum la laa yaalamun mm-hmm. yow yàlla déedéet yàlla maa ngi ñaan sax maa ngi leen di jéggalul waaye maa ngi leen di ñaanal sax nga jubal leen dañoo jub dañoo dañoo xamul rek mm-hmm. misaal boobu rek ak leçon boobu rek ñu jàngale ci yonent bi sallallahu alayhi jar na nit ñi xam misaal boobu dañ koo soxla ci jamono mm-hmm. parce que nit ñi dañoo mën a tooñ mm-hmm. nit ñi dañoo mën a sabote nit ñi dañoo ñaaw làmmiñ mm-hmm. nit ñi dañoo yaradiku nit ñi dañoo dañoo dañoo àddina daf leen a jaral lu nekk daraja daf leen a jaral lu nekk nga bugg a liggéeyal diine ci jamono boobu boo xamut fi yonent bi jaaroon ci muñ ak stratégie ak dal ak jéggal nit ñi ak jëflanteeg yàlla mën naa am boo amee pouvoir da nga dal ci kaw nit ñi boo amul pouvoir nit ñi danañ dal ci sa kaw faagaagal kon loolu mooy mooy moo moo waral ñii gàmm te nag bu loolu yëpp paasee comme dama koy gàttal mbir dama ko faral di wax euh, kii euh, Babacar ne suñ tollee ci buntu nawet mm. wala ci buntu année scolaire mm. maa la daq jàng maa la gën jiw maa la gën jarti maa la gën ay surga mën nañ koo wax ci commencement yu nawet bi mm. mais suñ demee ba nawet bi génnee gerte gi mu war a génnee génnee dugub ji génnee mboq mi génnee euh, lépp génnee xaal bi génnee lépp lépp lépp lépp ba siise euh, siise sawar lool xam ne fi mu ne nii moom macha allah affaire bi neex na jamono boobu noonu nañ bàyyi résultat yi mu wax mm-hmm. école bi moo dàq jàng bii école bi suma leçon yi maa la gën a mokkal su su bag yi génnee mention yi génn lépp génn bu boobaa nañ bàyyi résultat yi mu wax mm-hmm. amul benn bés boo xam ne Baye mas naa gàmmu ba fajar te moom amul conviction ci boppam ne li mu wax nii mënta ñàkk jur résultat. mu ne ana ko bëgg a tuub ndax am na ko bëgg tuub. ndax am na ko bëgg a tuub bokkut ak ana ñi bëggoon a tuub. Mhm. ndax am na ko bëgg a tuub mooy ne dafa dafa dafa mel ni ustaas bu jàngale leson ba pare waaye óolu boppam ne ni mu jàngalee leson bi leer na képp ko am xel wala nga am tawféex da nga ko dégg. Mhm. mu ne ndax yéen am na ci yéen ku dégg leçon bi. Mm-hmm. am ku jug taxaw ne ko man dégg naa ko mu mu defal la mu laaj la démonstration nga def ko. Mm-hmm. loolu la bàyyi doon def buñ gàmmoo ba ngoon ba ci bëj ba fajar gi mu ne ana kuy tuub ndax am na ko bëgg a tuub ñu ne ko am na ñu bëgg tuub amul benn gàmm boo xam ne bu gàmmoo ba fajar du am ñoo xam ne ay leneen lañ woon. Mm-hmm. nekkuñu ci lislaam ñu mujj tuub nekk nekk lislaam ba am na benn gàmm boo xam ne sax bàyyi dafay tuubal ñuy changer tur yi di changer tur yi mu jël temps bu gudd gudd gudd gudd. ba mujj gi sax dafa naan ku ñu wax tur boo xam ne tur lislaam la mu ne kooku jaru soppi mm-hmm. bi ñu demee ba ca kanam ñu ne ko am na ñuy jël tariqa mu ne déedéet bu ñi fekkee ne ñiy jël tariqa mooy ñi tuub léegi buñ jëlagum tariqa mm-hmm. nañ yem ci lislaam bi jàng ko ba xam ko ba pratiquer ko ba ci kanam bu boobaa ñu soog a seet ndax soxla nañ soxla nañ tariqa wala soxla wuñ mm-hmm. xam nga loolu sëñ Mbay dafa garaaw di. stratégie waaw dafay wane ne moom li muy def xam na ko te yàkkamtiwut te yàkkamtiwut ay taalibe. te itamit lislaam a ko tax a jóg. te dafay wane ni tamit tariqa bi du dara lu may lislaam. Mhm. waaye étape la kon bul tëb étape. Mhm. tariqa du leneen lu dul lislaam lislaam la waaye nag ay étape la. Mhm. mënoo rek dal quatrième étage te jaaroo ci premier étage. loolu yëpp bàyyi demos def ko démonstration ci jàmm kon léegi werante bi ak nekk fi di argumenté naan gàmmu baax naag baaxul jaratu ko. romb nañ waaw ñi gëmut gàmm. duñ ko gëm mukk. Hmm. maa ngi dégg oustaz muy wax ne ca Arabie Saoudite am na ñu bëri ñoo xam ne ci jamono bàyyi parce que benn waaye daf ko laaj na ko bàyyi nu muy def ba nekkoon tijaan nekkoon tas mu tasawif ba pare di ànd ak ñoo xam ne dañuy contour tariqa nu mu daan liggéey ak ñoom ba mën a liggéey ak ñoom. Hmm. xam nga leçon boobu itamit Babacar dañ ko war a jël. Hmm. bàyyi daf doon dem ci rabitul al islam. Euh, benn baas moo gënoon moom la ñu wax ne moo gënoon a bañ euh, affaire tariqa ak nangam nangam am nangam nangam te benn baas mooy dalal mooy mooy dalal bàyyi bu ñëwee. Mhm. ci rabitatul alam islami ah bàyyi daf ko wan ne ko gëmoo tariqa nañ bàyyi affaire tariqa ñu wax ci li nga xam ne mën nañ cee déggoo mhm. ñu dem parce que mhm. doo mënoo maa génnee ci tariqa te man tamit pare wu ma la ciy dugal kon nañ bàyyi wax jooju daf ñu indil problème te l'islam am na lum ñu mën a jëriñoo parce que am na loo xam am na lu ma xam mën nañoo jëriñu ci affaire boobu mu dem ba forcé ko benn baas ba nangu ñu ngi nettali ne am na buur boo xam ne boobu moo nekk waliyu ahdi faysal la war a doon booba nekk gut buur hmm. bàyyi ñëw ci at gi mu am ku mu yónnee bàyyi ne ko soo jox ko enveloppe bu mag def ci xaalis bu bari maanaam daal addiyee ju bari hmm. ne ko soo demee na nga wax bàyyi ne ko dama ñaanal hmm. bàyyi ne ko demal nga ne ko xanaa dafa fàtte ne man benn sëriñ laa ci sëriñi tari ci sëriñi tijaan yi mu ne waa ji delluwaatal nga ne bàyyi na nekk lu lu ko neex mais man dama ñaanal rek intéressé wu ma li mu doon may man na ma ñaan rek man xam nga loolu loolu tamit nga déggee ci ne Baye wane woon na ne man li ma doon doon naa ko mm-hmm. ba pare te amuma complexé xamoo ne li ko waral am na lu bëri li ko waral xam nga lan la mm-hmm. ki nga xam ne tijaan la wala mutasawif la waaye jàng na dara ci tasawuf wala nangam mais xóotuwut ci sharia xam-xamam tamit ci ci ci sharia wala ci lislaam wala ci kii yaatuwut yaatu googu noonu dafay tënku ci ci mu nekk ba ku nekk ku nekkul li mënta jëflante ak yow mm-hmm. keneen koo xam tamit sa xam-xam daf laa nax ba nga jàpp ne yow yow yow kenn am xam-xam da ngay foog ne euh, yi tamit mu tasawu fii nii parce que dañoo am taalibe seen taalibe dañ la déggal daf lay déranger parce que yooyu tamit doo kii waaye affaire bi kii waaye oustaz mu ne dafa am leneen lu ci gën a garaaw du wut ne ñëpp a bëggut bañ tariqa mm-hmm. dafa am ñoo xam dañoo bañ tariqa parce que kii la waaye daf cee bëri ñoo xam ne ci saaga tariqa ci la ñuy fay ko mm-hmm. mu joxe ci benn misaal bu doy waar mu ne da ngay imaginer ku jógee Nigéria ñëw ci ci rabita bi de jëm congrès ñëw yow yaa ngi romb ay nit ñoo xam ne ñi ngi jaay kurus ci buntu ci ci boori Kaaba gi ak boori Madinatu Munawwara boo demee am na jaay kurus foofu nga romb leen dem ci benn borom xam-xam bi nga xam maanaam ci ñooñu nga xam ne ñoo yore mm. doole ji ci ci ci ci kii parce que yore nañ xaalis mm. nga indil ko ay kurus ne ko kurus yi maa ko nangoo ci tiijaan yi nga xam ne ñoo nekk Nigéria di affaire yi caaxaan yooyu maa nangu seen kurus indil la ko mu mu mu gërëm la di la jox di la di la jox ay xaalis di la jox nangam te yow te fàtte nga ne yow am na ñuy jaay kurus fii yaa ngi leen romb moom it mu dof ba jàpp ne maanaam ay nangu ay kurus kon mu nga mu mu ne nga déggee ci ne am na ñoo xam ne ci loolu lañ doon amee mm. xaalis la xaalis moo ci nekk bu bëri boo xam ne moom la ñuy jox nit ñi pour ñu saaga sëriñ si am na ñoo xam ne loolu ci la ñuy nu mm. boo demee même ci ñi koy def ci réseaux sociaux yi amul ci kenn ku koy def gratuitement mm. amul koo xam li muy def tamit daf ko gëm maanaam dafa dem ba jàpp ne sëriñ si dañoo bon rek nangam ak nangam wala gëstoom moo ci àgg wala déedéet bëriwu ci. 1 hmm. pour cent motu ko ñi ci ëpp loolu dañ ciy fayeku. Hmm. waaw dañ ci fayeku moo tax loolu la parce que boo demee site yi koy def yëpp maanaam seen site yi xam nañ ni muy demee. Hmm. sax dama ciy laal benn appel wax ko taalibe yi wax ko nit ñëpp. am ñi xam ne intellectuel lañ. nañ bàyyi nit di fooyee seen xel yi ba pare di jël seen xaalis yi ci seen poos yi. maanaam nit du créer sit di saaga xalifa général. Tijaan di jaale général di saaga xalifa Madina di saaga xalifa général Murid di saaga ba pare site boobu ñun taalibe yi ñoo koy déglu non mu yàq suñu xol ba pare te ñun nombre de vie yi nga xam ne moom lañ moom moom lañ koy jox moom ci lay ci lay ci lay amee xaalis pour di saaga nit ñi. Hmm. kon loolu yi tamit lu tax euh, suñ njàng yi du ag ci loolu ñu xam ko. site boo xam dafay saaga sëriñ première première euh, acte mooy mooy ñun ñëpp ñu d'accord ne képp kuy taalibaay bu ko déglu bu wa ignoré ko mm-hmm. buñ ko ignoré mu gis ne viam yaa ngi wàññeeku mm-hmm. bu boobaa dana dana changé ni muy def mm-hmm. kon loolu mooy loolu loolu mooy gàmmu kon jaratul werante jaratul dara li ñu war a wax kay mooy fàttali nit ñi ne leen gàmmoo ngi nii di ñëw bàyyi ci boppam waxoon na ne moom comme bëgg yonent bi ci la amee lu nekk kon ñun tamit nañ fàttaliku ne lépp luñ bëgg ci bàyyi rek ñu ngi koy amee ci dimbaleku ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam hmm. loo wax garanti ko man aljana laa ko tee ngaa wax leneen mu ne ko sëñ bi man da nga ma ci dimbale de hmm. mu ko ci naka lay naka la ciy dimbalee mu ne ko ay nii bi kasar sujudi hmm. ni may dimbalee mooy yow ngay góorgóorlu di julli di sujjóot lu bëri soo sujjóotee lu bëri rek man mën naa sukkandiku ci loolu kiyal la aljana mm. li tax ma indi hadis boobu mm. mooy pour ñu xamee ci ne ñun lépp luñ bugg ci bàyyi mm. bàyyi am na garantie bi waaye buñ bëggee dimbalee bàyyi ci garantie bi gaaw mooy ñu jaar ci yoon wi nga xam ne moom la jaaroon ci bëgg yonent bi ba moom mu nangu ne jàppale nañ ko ci parce que lépp lu ñu wane ci bëgg yonent bi rek dafay sagal bàyyi ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que bàyyi moom bëgg na yonent bi ba pare maqam am na ko ba pare mm. waaye nag ñaata nit laa fexe ba jëlee leen ci sàggante indi leen ci bëgg yonent bi loolu yi tamit dafay dafay dafay nekk sagu bàyyi mm. mm, benn waaye daf ma nekk lu am solo mu ne ma sëñ Fallou dafa am bu ñu ko indilee Mercedes fii boobu Mercedes bëriwut ci Sénégal ñi ko fi am bëriwul jóge Kébé moo ko fi am moo ko moo ko moo dafa mel ni sax moom moo ko ko moo ko ko joxoon addiye wala daal noonu man daal ko fi am bëriwuñ mu dugg ci Mercedes bi naaj bi tàng na mu seen benn taalibe taalibe bu oyof nii waaye na xàmmee na ko taalibe la mu ne ko kii de naaj bi tàng na te yàgg na ci kii bi yóbbaale maanaam Serigne Fallou taxaw Mercedes bu mel noonu ak jëmmi Serigne Fallou ak darajaam di yóbbaale yóbbaale benn taalibe bu bu bu oyof noonu dafay dafa dafa rëy ci taalibe bi. Hmm. ah ñu yóbbu ko ba àgg fi mu jëm mu taxaw wàcc rek mu xaal jàpp ko mu ne Serigne bi ah aljanna yi tamit de àllaaxira tamit de nii rek la waaw boo ñu fa fekkee rek yóbbaale ñu mu ne ko waaw baax na waaye naa la fekk ci yoon mhm. waaw waaw. Mhm. naa la fekk ci yoon kon ñu ni tamit lépp luñ nañu bàyyi fekk ci yoon wi. alhamdulilah loolu mooy wax ci mbiram école bi tamit yow yaa ko junj léegi. Mhm. école la boo xam ne booy def historique bi da wax ne rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy awwalu muallim. mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy awwalu mutaallim wa awwalu muallim. parce que moo mooy. élève bi njëkk a jàng ci diine mm. waaye mooy sëriñ daara bi njëkk a jàngalee tamit ci diine parce que yàlla daf ko wax ne ko bi mu koy wàccee alquran iqra la wàcc mm. am na ñu bañ jàmm ñoo xam ne euh, maanaam pour weddi ne iqra njëkkut a wàcc man sax bu fekkee ne gëstu la rek ak gëstu moom dafay avancé heure bu nekk war na bees. Hmm. waaye acharnement bi ci am ku ko wax jàngoo amoo xam-xam loolu amut. loolu laa xamut loolu pour lan la te nit ñi nag façon boobu la ñuy wax léegi même même ñiy waxtaan ci bàyyi sax suñuy défendre bàyyi ñoxor njaay rek ñu naan ñi bañ bàyyi ñooñu nangam danañ xalaku dañ nangam bàyyi ñu ko bañ waaw doo wax ak ñi bëgg bàyyi ba pare balaa ngay wax ak ñi bañ bàyyi ñi bañ bàyyi sax looy wax ak ñoom luy sayoon ci ñoom hmm. <laughs> la déglu hmm. jarut wax kon ah, jiwu jàng moo ci njëkk a wàcc. Hmm. yonent bi ci boppam daj ci jàng loo xam ne jàng nga ci ci ci ci gàmmu ñu ne njett nañ ko. njett hmm. kuttu ko ba nga xam ne nee na euh, am na benn moment boo xam ne kuttu na ma ba nokkeetu ma. Hmm. bu continuer woon rek sama rox gi dem def na ko ko njett yoon na ko jàngal mu ne ko du jàng. kon mën nañ cee xamee ne non seulement yonent bi mooy euh, euh, taalibe bi ñëkk a jàng alquran njëkk a jàng xam-xam. waaye nag daj na ci jàng xam-xam loo xam ne ëllëg bu ñu ci ne daara yi dañoo sonal xale yi xale yi dañuy tilim ak dañuy nangam parce que li yonent bi daj dem ba nga xam ne ni yaa ngi sa bakkan bi xaw na cee dem mm-hmm. loolu ñun ñun ñëpp àgguñ ci mm-hmm. te bi daj na ko ci jàng te soxla loolu mm-hmm. mais daf ñu ci doon loolu amee mu daal di nekk jëkkale jàngalekat yàlla du wët wax ko wët yu bëri jàngalal jàngalal nit ñi jàngalal nit ñi ba àgg ci euh, dugg ci xóot xóot ak faram fàcce ak nangam ak nangam ak nangam jàngale histoire jàngale nangam jàng nangam mu taxaw di jàngale ne moom sax daf ne innama boistu mualliman yàlla kat daf maa yónni uniquement pour ma nekk ab jàngalekat man ab enseignant laa jàngalekat laa loolu loolu mooy sama sama sama mooy sama mission saxaaba yi doon na ko ci moom sallallahu alayhi ba sallam balligu anni walaw ayata ñuy ñuy ñuy jàngale di tasaare ba at ba at dëmbi di dox di dox di dox ba xam-xam taxaw ñu bind. ñu bind dégg nga euh, si xaax yi ñëw ndax dama nangam. Hmm? loolu loolu moo indi xam-xam. xam-xam di dox di dox di dox. ñi di ko doon. ba agsi ci Cheikh Ahmad Tidiane. moom it mu jox xam-xam itte jàngale dégg nga def lu nekk ci xam-xam ci tasaare ko. Hmm. xam nga man léegi léegi am na benn leetar boo xam ne. Euh, majmahu euh, rasaili Cheikh Tidiane radiallahu anhu maanaam ay leetaram yoo xam ne dañ koo dajale def móol ko leetar yooyu rek soo koy soo koy jàng boo demee ci côté baatin da ngay foog ne Cheikh Tidiane baatin rek ko tax a jóg ay tarixa ak nangam hmm. mais boo demee ci côté zahir ni muy wanee ne nit ki noonu la war a respecté sharia hmm. boo demee buy wax julli ne maanaam boo taxawut taxaw bi nga war a taxaw ba dal rukkoo ba dal siggi ba dal boo ko mm. deful sa julli gi soo paree dañ la koy delloo mm. nga xam ne kooku kooku ku respecté sharia mm. boo demee ci mu amalaat jëflante nii surtout ci wàllu xaalis ak banque yi ni mu ciy wax ak ni mu ko ni mu ni mu ci ni mu ci moytandikuloo nit ñi lekkloo moomut mm-hmm. da nga xam ne kon kii li muy def lu mu xam la duut rek ay affaire bu baatin ak nangam nangam mais baatin munul am te zahir amut mm-hmm. dafa jàng am xam-xam baatin bi dafa ñëw waaye xam-xam dafa am loolu nag ci la affaire bi di dox ba yàlla def bàyyi ba euh, kii maamalaaji ñëw moom i tamit nekk xalifa Cheikh Tidiane nekk donoom moom i tamit il kon kon dafay donnu xam-xam mu taxaw def ci xam-xam ci jàngale loo xam ne kenn mësu ko gis doy na ci xam ñu ne la yow yaa jàngal Baye Niass mu ne man amul kenn ku ma mas a tëral benn darse ku may sama koy suma baay darse bi ma mujj a defal bi ma ko defee keneen tegu ci beneen te keneen mosuma jàngal doy na ñu ne la kooku moo jàngal Baye Khalifa hmm. doy na kooku ñu ne la moo jàngal Alhaji Mouhamed Zeynib moo jàngal Alhaji Babacar moo jàngal Alhaji Ba Abdou Niang hmm. ñooñu ñëpp mu jàngal leen loolu dafay wane ne taxaw na ci xam-xam waaye dafay wane donoom ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit parce que barke njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñ na hmm. ci ñim jàngal ci ak ci baati bàyyi nag mu ne Mamalaaji bi mu fi génnee àddina damaa laaj sama bopp benn question waaw ñii nga xam ne ñoo daan ñëw ci maamalaaji guddi ak bëccëg suba ak ngoon mu di leen di jàngal di leen feccil masala yi. di leen taxaw ci xam-xam léegi dem na léegi kan bu ñëwee ci kan la ñuy dem. mu ne ah war nañoo dem ci ñëpp de waaye man waruma des gannaaw man itamit war naa préparer ba ku ñëw ci man man man itamit ma man laa jox li sama li ma li sama baay daan jox ci xam mu ne kon man waruma des gannaaw ñëpp ubbi daara waaye man it ma ubbi daara. kon daara yooyu noonu yëpp daara bàyyi Khalifa daara Alaji ma Abdou Niang daara euh, Alaji Ahmed Boucar daara euh, Alaji Babacar daara Alaji Mouhamed Zeynabou yëpp ay ay ay ay kii la rek benn école la am ay classe ci biir. Mm-hmm. maam Alaji mooy école bu mag bi kalaas yi moo mel noonu Baye nag mu ne ci loolu laa dem di jàngale di jàngale ba benn jëmmi jamono nag man ma gis ne maanaam nit dafa war a dëppook jamonoom. Mm-hmm. daara ji la woon toog di jàngale waaye fi mu ne jamono dañoo toll ci jamono ju laaj diplôme. jamono ji laaj ñu dugal ci yeneen i xam-xam ak moderniser njàng bi pour nit ñi ñiy jàng mën a jëriñoo seen njàng bi. état mën koo reconnaître addina bi mën koo reconnaître ñu mën koo jëriñoo ci wàllu àddina ni ñu ko mën a jëriñoo ci wàllu diine mu ne loolu moo tax ma defar école bi man defuma lu may moderniser ko. dëppale ko ak jamono waaye man ci laa jàngee. bàyyi xalifa ci la jàngee sama mag yëpp ci lañ jàngee. kon école boobu mooy mooy mooy mooy mahad bi imaam Assane wax na ma ne ma mu ne ma bàyyi ci mujj dundam bokk na ci lim ko mujj wax mooy ne ko doom su ma wiraatoon ba dellu Sénégal ñaari yëf rek laay itteewoo. benn danaa firi alquran beneen firi bu boo boo xam ne danaa ci dugal dégg-dégg yi ma am xew-xewi jamono yi. waaye danaa toppatoo sama bi ba def ko université. ñaar yooyu mu bokk na ci lim mujj wax ak moom wan ko ne ko loolu mooy ay bibitam école boobu nag tey jii nii Cheikh Mouhamed Nazir. la ko baay jox mu def ci àddinaam yëpp amul benn soxla amul benn itte fenn def ci lu kenn mas wax loolu pour wax ko benn émission sax mënu koo jeexal kon mënuñ ko wax tey sëriñ Mahi ñëw nekk fa ñaar fukki at ak ñaar booba man ak moom ñoo fa nekk maa ngi nekk ci wetam ak ñoom Oustaz Ibrahima Ndiaye ak ñeneen taxawu ko mu liggéey fa liggéey bu mucc ayib boo xam ne moom itamit yóbbu xam-xam ak saqaafa ak buggu xam-xam def ko ci xale yi Euh, foo xam ne libéré xale yi pour euh, ñu ñemee wax ci mbooloo. Mm. ñemee bind ñemee def ay discours loo xam ne moom tamit ñëpp gis nañ ko. Mm. bu yàlla defee nag mu nekk xalifa mu ne mën a kaay ma dénk la école bi ma ñëw nekk fa di di nat nati suma premier objectif moo doonoon bi ñëwee fekk na ci wàllu maanaa ci wàllu saqaafa ak wàllu niveau njàng wax dëgg yàlla école bi avancé na. Mm. waaye nag ci wàllu tabax tabax yi yàgg na yàgg goo xam ne. am na lu ko jot. ba nga xam ne ni tabax yii yée ngi waaj a daanu yii boo toogee jàkkaarloog jant bi bu tawee kenn du xam fooy jaar ba léegi école bi dafay dafay indoon ne fi mu ne nii jamono ji may wax ak yéen kenn mënta dugg ci école bi ndax ndox ngi nekk loolu nag ñu lancé woon appel boobu wax dëgg yàlla am na ñu uy boobu moo njëkk uy tabax classe yoo xam ne bâtiment boo xam ne bu mucc ayib la bu rafet bu am solo boo xam ne bâtiment bi lu mu taw taw yow di nga mën a dugg foofu te boo duggee dafay mel ni gisoo ndox hmm. fi ngay jaar ba dugg fa mooy problème waaye loolu moom mu ngi taxaw gannaaw gi tamit am na ñeneen ñëw boo boo duggee léegi da nga gis ne Nazirou sekk mu ngi tabax foofu bâtiment boo xam ne juróom benn classe la yoo xam ne ak nangam yoo xam ne tamit tabax bu rafet la bu mucc ayib boo xam ne nii am na hmm. waaye lu jiitu loolu fekkoon na euh, fond Medina Baye. moom it hmm. tamit tabax fa benn benn neuf yoo xam ne ak nangam boo xam ne moom tamit vraiment bu moderne la bu rafet la. Hmm. lu jiitu loolu tamit Cheikh Mahi Cissé euh, ak imam mos nañoo. tabax nañ fa ñaari bâtiment yoo xam ne moom tamit ku nekk benn boo xam ne tamit boobu mi ngi commencé yàgg waaye nag boobu defar bu ndaw rek la laaj. Hmm. defar bu ndaw rek la laaj parce que tabax bi yàqoogut hmm. dara yàqoogut xaj na yee yeeg tàngam ak nangam ak yàgg bi mu yàgg moo tax. Hmm. Euh, xale ñii tamit ñi ngi commencé am na ñeneen ñuy def euh, Cheikh Tidiane Wulu sayit def na fa. jaawo euh, ok jaawo yi tamit exactement. ñëw na fa moom i tamit def fa ñaari euh, ba kii yoo xam ne juróom benn classe ak ay bureau yoo xam ne moom i tamit vraiment boobu moom mooy mooy mooy mooy yore mooy dëpp daj dëpp gi mm. vraiment dafa rafet na moderne na dëgër na te dafa dafa dafa style bu rafet rafet rafet mm. loolu yëpp nag ak Cheikh Tidiane Wulu Seyid Hajj Wulu Misri ak euh, Benjeloum moom i tamit ñu ngi koy ñaan mu ñëw mottali kalaasam yi parce que pare na équipement bi ñu ci war a def rek moo des. Hmm. Euh, muqaddam boobu gaañu bu yàggul tamit ñu ko wax diis. Hmm. moom tamit moom moo tabax kii boobu noonu salle de réunion boobu ci kaw. Hmm. am na ay étudiants yu ñëw wane ne ñoom bugg nañ pour pour équiper ko def fa ay ay ay nangam équipement pour ñu ko ci loolu lañ tollu ci école bi pour xam ne xam-xam ci ci kër baay. xam-xam ci bàyyi ci boppam ak ak ni mu ko jàppee. jar na nit ñëpp xam école boobu lan la te waxuñ kenn mu sànni alalam waaye ku nekk na ñëw xoolal sa bopp gis li nga mën a def lan la. Mhm. waaye lu mujj gi nag mooy Abdourahmane Ndaw moom tamit ñëw na fa mi ngeen xam mi tabax. Mhm. zawiye bi. Mhm. mi tabax euh, dispensaire Medina bi hôpital bi. ñëpp xam nañ ko ci ci ci ci jub ak tabax fi mu ne nii nag collaboré na ak ak ak. fond Medina Baye. pour ñu jël en charge nag école bi fexe nag ba mu àgg nag ci niveau bu mujj bi muy àgg. fexe ba ndox bi dootu fa taa fexe ba def fa yeneen i jumtukaay yoo xam ne surtout nag euh, bâtiment boo xam ne dana mun a abriter jàngalekat yi égyptiens yi. yi mm-hmm. nga xam dañuy ñëw ñuy am problème fu ñu leen def. ñu tebal leen leen dëkkuwaay boo xam ne suñ ñëwatee foofu la ñuy nekk duñu soxlaa dem feneen. Mm-hmm. ñu leen di luweel ak di nangam nangam. fi mu ne dañoo mujj sax fi ñu pour ragal ñu ñàkk ko fi mu ne nii dañ koy fay ci vacances yi pour pour bañ ñu ñàkk ko. Mm-hmm. te wax dëgg yàlla amuñ ko. parce que man maa ci nat nati rek xaalis bi ñore woon école bi jeex na takk fi mu ne nii man maay góorgóorlu ci sama xaalis bopp di ko di ko fay ngir bañ ñu perte ko parce que soo ko soo ko soo ko bàyyee léegi. dañuy ñëw ba agsi. ñuy utal ñu utal fuñ leen fuñ leen fuñ leen def te loolu dafay métti. loolu yëpp ñu ngi koy daj am na xale yi ñu nekk ci école bi daanaka boo ko xoolee bu dee junne élève la ba juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp. seen i bàyyi ay pa ay ay ay néew ji doole lañ. ak mhm. ay ay nit ñoo xam ne seen i parents gaañu nañ ak nangam ak nangam amuñ amuñ dara. Ah, ba pare te dañoo bëgg a jàng te bàyyi moo oote ne kaay leen ma jàngal leen. Mhm. ne amul kenn koo xam ne sañ nañ koo dàq ngir ne amul kii loolu nag am na ñu ci sukkandiku ñoo xam ne nii amuñ waaye am na ñoo xam ne dañoo am ba pare di ci sukkandiku te mënuñoo dàq kenn tax na ba xam ne école bi tamit soxla na ndimbal ci côté boobu. Mhm. pour ñi fay jàngale ak ñi fay liggéey wax dëgg yàlla ñoom i taalibi waru waruñoo nangu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci école Baye bi gën a ndóol ci mboolem ñi nga xam ne ñooy liggéey ci yeneen école yi ci àddina bi yëpp surtout école arabe yi loolu taalibi Baye war nañ koo jombale seen bopp mm. te loolu yëpp nag du dara lu may dafa jar nag école bi dem information waaye dafa jari tamit taalibe Baye bi par curiosité ak i tamit xam gim xam euh, Baye fi mu teg xam-xam mu départ ñëw ci école bi laajte ñu ne ko lii ak lii waaw mais ku nekk bugg toog sa kër kenn ku nekk nga dem ci moom dafay métti boo defee tamit euh, ku nekk euh, maanaam dafay dafay dafay métti trop pour ñu def loolu waaye taalibe bi ñun war nañoo def communication war nañoo def lu nekk pour àgg ci nit ñi waaye nit ñi tamit bàyyi ak xam-xam war na leen a jaral ñu ñëw ne waaw fii lan lañ fi war a def waaw ñu ne la paree parrainel benn élève sax yow amoo xaalis waaye mën ngaa ne benn élève fukki soixante mille par par par at nga ne man paree naa benn élève pourquoi taalibe bi bàyyi waruñoo mën a def loolu. Mm-hmm. kon loolu mooy li nga xam ne moom moo nekk ci école bi ñuy ñaan ñu tasaare ko addina mhm. bi yëpp dégg ko waaye bu ku dégg yi tamit balaa ngay def benn réaction mhm. na nga ñëw ba ci école bi wala nga ñëw ci man wala nga ñëw ci ñu nekk ci école bi nga laaj leen ñu expliquer la wan la yoon boo xam ne bu bu transparence la nga xam ne boo ci defee sa xalal alal di nga xam ne loolu mhm. bu boobaa yi tamit na ñëpp préparé ne fond dina bàyyi ak ci njiital Abdourahmane pare na pour defar école bi ku ku ku neex nga xaar bañ def appel de fonds waaye kum neexi tamit ubbi nañ am na ñu commencé joxe seen seen participation déjà bu kenn xeet dara ku ci am sax dix mille francs boo war a joxe mu jëm ci école bi bu la neexee nga oo Abdourahmane mu wax la foo koy dugal nga dugal ko fa mm. bu ko defee balaa ñuy toog déwén heure bi mm. ñu defar école boo xam ne dëgg dëgg li ma waxoon sànq bàyyi pour ñu mën koo pour mu mën ñoo dimbale pour ñu mën a gaaw ci suñ jokk jot jottaliku bi muy jottaliku ci ñoom mhm. billaahi bés buñ ko defaralee école boo xam ne bijou la bu rafet boo xam ne ku taxaw fii àddina bi yëpp xam ne école bi rafet na mhm. Cheikh Tidiane bëgg ci bàyyi bëgg ci yonent bi bëgg ci bis ñu defalee bàyyi lu mel noonu bu boobaa danañ gis ci xéewal loo xam ne musuñ ko gis mm. xaalis boobu demul ci poosu kenn mm. demul ci euh, jéey baay kenn demul ci mm. dépense kenn ci école bi lay jëm te wax dëgg yàlla nit ñi war nañoo sëriñ Mbuub war na leen a jox exemple war na leen a jox misaal jaawoo war na leen a jox misaal mais ñeneen ñi tamit war na leen a jox misaal parce que kenn ku nekk ba nga defalee loolu bàyyi ak léegi koo ci laaj du la wax ne dellu na gannaaw mm-hmm. waaw kon loolu mooy li nga xam ne moom la am ci te école bi tabax na ay a def waaw xam nga loolu sax baa baax na Babacar Bachir pour ngeen fàttali ko mm-hmm. parce que appel bi sax mi ngi njëkk a jëm ci képp koo xam ne mm-hmm. jaar nga ci école bi mm-hmm. man sax dama yaakaar ne yéen média de la fayda bi yéen lañ waroon a chargé loolu ngeen ngeen ngeen organiser ko en collaboration ak avec al fayda ñu fexe ba recenser ñëpp ku ngeen xam def appel ne képp ku bokk ci école bi jaar fi xeebuñ loo am xeebuñ sa xalaat xeebuñ sa ñaan ñu ngeen def benn groupe boo xam ne yéen koy waxtaanee. Hmm. ba dajale li ngeen am ñëw indil ko fond bi wala kii. Hmm. na ko ñu ni tamit lii mooy suñ kii wala ngeen dimbale leen ci communication bi rek. Hmm. waaw tasaare ko xamal ko nit ñi. loolu tamit lu am solo la. def campagne waaw. allah euh, loolu moo nekkoon waxtaan bi ñu ngi jégalu ci guddal gi di am mbégte ak kontaan bu baax a baax a baax. ñu doon ànd ak euh, suñu papa euh, Cheikh Mouhamad bun Hamina Ibrahima Niass mi nga xamante ni comme ni mu ko waxee léegi moom moo nekk mudirul mahad Hadj Abdoulaye Niass euh, gis nañ ñi nga xamante ni expliqué nañu ko ci résultat yi nga xamante ni école bi mu ngi am macha allah ndax am na luñ ci fekkee gis nañ daaw ñi nga xamante ni ñoo defoon bac résultat yu am solo yi nga xamante ni am nañ ko Sénégal yëpp di ko waxtaanee. loolu ak ak ren. macha allah ak euh, résultat yi ñu am ci entrant sixième yi. yi ba ci baccalauréat yi te ñu ngi am yaqin incha allah loolu kanam la ndax euh, bàyyi moo ñaanul loolu ne képp ku fi jàngee yàlla na yàlla euh, barkeel li nga fi xam même bu benn xarab te ñun ñu jaar foofu noonu mbët bu set dinañ gis lu dëggal wax jooju noonu ñu ngi ñaan yàlla maqaama googu yàlla bu mu fa jóg yàlla fa yàlla saxal. di lancer appel bi nga xamante ni moom la sëñ bi tëjee rek mu nekk benn appel boo xamante ni ñu ngi koy jëmbale ci ñëpp. def ko comme genre campagne laa koy tuddee euh, sensibiliser ñi nga xamante ni xëy jël maa xam dañ am na ci groupe bu mu ci bokk xam naa incha allah danañ jéem a dagg séquence bi dugal ko foofu ñi nga xamante ni bokkuñ ci groupe bi ñu fexe ñu jot ci ñoom it ñu tasaare ko ba ñëpp kenn ku ci nekk liñ ci war a def xamal nga ko su bopp boo xoolee li nga xamante ni jëlee nga ko ci mahad bi ak njëriñ li ñu jural ci sa mustaqbal war ngaa mën a def retour bu jógee ci yow ñëw ci école bi même buy benn saaku ciment sax xeebuñ ko ay tamit même buy un million it nawuñ ko ndax xam-xam moom laa yustara bi dirhamin waaye nag euh, ñu ngi gërëmaat suñu papa beneen yoon di am mbégte ak kontaante bu baax ci daje bi nga xamante ni may nañu ko di ñaanal yàlla ki nga xamante ni mooy imam Cheikh Ahmed Tidiane Seyd Ali Cissé ñu ngi koy gërëm bu baax a baax moom it di ñaanal rakkam Cheikh Mouhamadou Mahi euh, Seyd Ali Cissé waaye mboolem doomu bàyyi fu munti nekk ñu ngi leen ñaanal ñoom ñëpp di ñaanal taalibe yi nga xamante ni ñu ngi wàcc ñëw ci gàmm gi yàlla na ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ak euh, mboolem jullit fu mënta nekk rek yàlla ko yàlla dafa jàmm di ziare ñëpp beneen yoon di wax rek euh, émission bi média de la fayda ñoo ko réalisé mu nekk euh, rabitatu alaami fayda bu soobee yàlla di ngeen ko seetaan ci youtube bi ak ci facebook bi ak ci yeneen plateforme yi nga xamante ni mi ngi ci réseaux sociaux yi di jox ñëpp dig dajee beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.